Euh, dans votre scandale du jour de ce lundi 4 décembre sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai me bëgg cette année ben vidéo vidéos. xamante ni vaar la diggante Assane Diouf ak kii nga xamante ni Ousmane Sonko Assane Diouf de famille, de dafa Ousmane Sonko foofu nga moi ni Cette année cette année vidéo bi le soir. man nekkuma fi pour au Sénégalais man dama fi nekk pour dimbali Sénégalais yi ñu Yew. parce que dafa am benn groupe bu doomu aadama mooy ki nga tudd turam léegi Ousmane ko bi mars yooyu arrêté ñoo aar li ñu bokk ba léegi gis nga ko ci beneen mars dem ci benn mars parce que dañu jëloon même panel yi panel lépp luy daw ci dëkk bi rek ñu dugal fa ay nit ñuy jéem a xam a nekk benn groupe ay alqaida ci biir panel yi comprendre nga. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni Ous Assane Diouf yëkkati na ko yóbbu Ousmane Sonko vaar lu tax ñi ko doon saaga parce que tey nga gëm Ousmane Sonko par force soo gëmul Ousmane Sonko par force dañuy saaga sa ndey saaga sa baay yàq sa der tuumal la góor jigéen tuumal la lu nekk ci àdduna loolu mooy parti bi nga xamante ni Ousmane Sonko créé woon na ko ci Sénégal dictature intellectuelle pensée unique bi nga xamante ni Ousmane Sonko indi na ko fi tey Assane Diouf bi yaakaar naa amul kenn fi taxaw tey di défendre Ousmane Sonko ak ñi ànd ak moom je crois que dañu war a dañuy nelaw sénégalais yi nag ñoom ñoo war a yeewu xool seen intérêt xool seen avantage génn ci li ñu nekk ñi àndoon ak moom te ñëg jàpp leen ñu xam ne ni que àdduna du dara mën nañu reculer reculer ça permet de mieux sauter kon yaakaar naa ni kàddu yi Assane Diouf yëkkati yéen laay bàyyi ngeen tegal ci seen commentaire seen bopp.